muy làmb ji ak football nawetaan bi ñaari sport yooyu la ñuy faral di gis violence bu metti dimanche bi passé rek noonu la woon ndax nag xam ngeen ni combat de lute bi waroon am ci diggante Papa Sow ak Siteu dañu ko mujjee annulé ndax Papa Sow mi nga xam ne dafa am ay jàppante rek ak fans wala sax clan Siteu def si jëlee ay gaañu gaañu naka noonee sax si la ñu mujjee annulé combat bi ndax papa mënul woon continuer bëre ndax deret ju bëri bi nga xam ne perte na ko démb tamit ca Rufisque seen stade bu mag ba dafa amaloon ab match nawetaan boo xam ne rek xeex bu metti moo ci am ba mujjee am ñaar ñu si ñàkk seen bakkan ak ay supporters yoo xam ne dañu si jëlee ay blessures ba ñu mujjee leen évacuer nu mu gën a gaawee ci hôpital yu leen gën a jege nawetaan ku ko xam xam ne yàgg na drainer ay foule surtout ndaw ñi te tamit rek du fi guléet ñu gis violence bu mel nii ci nawetaan yi rek ci di ci seen biir lépp lu ñu jot wala ñu romb ko dañu koy yàqate stade Galandou Diouf mi nga xam ne fa la match ba amoon yàqate nañu ko taal gazon bi camp yi nga xam ne sax dañu ko fa defoon ngir rek ñu si tàggat seen yaram ak góorlu xale yi daal yóbbu nañu ko te nag stade Galandou Diouf bi ñu ngi ko ubbi ci atum 2020 bi rek ngir doomu gox ba am ay infrastructure yoo xam ne dinañu ko mën a jëriñoo coow li am ca stade ba nag mu ngi jóge ci ab penalty boo xam ne supporters yi ci boppam ñoo ko nanguwul ca loolu sax si la ñu perdre le contrôle bousculade bu metti commencé fa ba mujjee xeex supporters yi nag bëri nañu ba nga xam ne ci la seen benn partenaire stade bi mujjee daanu nawetaan bu njëkk ca jamono nawet la daan am loolu moo waral sax tur bi waaye léegi nawetaan ci biir année scolaire lay am moo waral xale yu bëri dañuy mujje di daw jàng rek ngir mën a dem stade seetaani seen jàppante ba amoon ci stade ba yemul woon rek ci ñoom ndax nag supporters yi dañu ko mujjee àggali ci biti ndax xam ngeen ni terre bi dafay jaar ca wet ga ba loolu sax moo tax euh, démb ci même waxtu ba benn ram train express régional dafa doon romb rek xale yi déverse ko seen colère bi yëpp maanaam dañu ko saccagé toj verre yëpp ngir rek réew ak maa tey ndax nag euh, terre bi amul benn rapport ak match bi ba xale yi di ko yàqate nii jeunes yi nag yaakaar xamul rek ni sport fair play la tey nga am ndam suba nga ñàkk lii yëpp jaru ko at ni ñu ko saccagé Ramtrain express régional dañu ragal rek nii dina impacté waat ci démarrage bi ak inauguration bi nga xam ne moom la ñu prévoir pour le 27 décembre bi ndax nag du benn du ñaar président ci boppam repoussé date d'inauguration bi ci ay raisons yoo xam ne teguwul fenn waaye lii xew démb mën naa indi ay conséquences yu ci mel na nguur gi Dakar date d'inauguration train express régional bi te bu boobaa kenn du si mën dara ndax nag askan wi ci boppam ñoo nar a nekk responsable yi lu